Khadim nag si gën si dëgg allez sa bëri jërëjëf taxawaay nag fi nga xam ne fi la ko sëñ Abdou Karim teg moom sëriñ Fallou borom makaarimul axlaaq bala koo woote day bàyyi ba sëriñ bi wax ba noppi xam nga sëñ Abdou Karim am na nu muy doxee noo xam ne murit bu ne war na cee roy ndax mooy royukaay bi ndax toppe toppe daa am nu ñuy toppe mm-hmm. toppe bala ngaa xam ci li ngay toppe ki ngay topp dala koy wax ba noppi mm-hmm. bu dee jëf la nga gis ko mu jëf ko nga roy ci la nga man moo tax képp koo xam ne ñëw nga fi sax bëgg a jël ay wax dalay wax ne nañ bàyyi ba sëñ bi wax li muy wax bañ xam li muy wax fan la jëm su ko defee ñu doog a mën a wax daal bu fekkee sëñ bi waxagut ba noppi soo waxee ba noppi sëñ bi wax leen ne looy wax sëñ bi nag wax na ba noppi woote na nañ màggal nañ war a màggalee te wormal dëkk bi kon nag ab taalibe sañ na caa topp wax ci waxi taalibeem wax ca nag lu yokk nit ñi ndax eh, message bi kat bu ko sëriñ bi xasee jàll ba noppi daa bëgg mu gën a yaatu li bon rek mooy wax sa waxi bopp wala wax loo xam ne bu ñu ko xoolee day bokkut ak li sëñ bi wax loolu nag moo waral kàddu yi ni mu koy waajalee tey boo génnoon ci biti dangay fekk nag nag yi rang loolu nag dara du ko jiituwul ci bis bi ñi ko yëg nag xam ne buñ ko àndeek moom sëriñ tubaa dana ci jot ñëpp a ngi ñëw di ko ànd ak moom waaye balaa looloo am kenn du ko ciy jiituwul danaa dangeen ma may rek ma leeral tuuti ñi fi ñëw di ko di ko siyaar si nga xam ni bu dul màggal ak kazu rajab ak xew-xew yi dañuy ñëw di ko siyaar si ndax am na lu ñu yaakaar te yàlla di ko fi woon ñu di ko wut si ñooñu li yërmaaneem di dox seen digganteeg moom lépp lépp lépp lépp dañuy ñëw toog mu ne leen fi mu ne dama wax ji dama dama bëgg mu gudd ndax bisub sëñ Tuubaa bi moo ñëw ndax li may root kat di leen ko jox foofu laa koy rootee mm-hmm. te damaa bëgg nag li may root fa ma koy fa ma koy jëlee foofu nag bu bisam ñëwee mu wan ko de sa bis ñëw na dox ci doxin ma war moo tax toogaay yàgg yi duma ko mën benn bi sax ci ni muy waxee xoromu gi mu ne ni ma daan wax sax naan añ bi koy xaar koo xam ne yàkkamtiwul mën na koo xaar ko yàkkamti mën naa def loolu lépp dama ci fekk ku bëgg a toog añ daal na toog añ loolu nga waxee nu kaf la ak wan leen fii fu yëfi toll ndax Sëriñ Tuubaa doon na wax ne euh, kaf dagan na waaye nag bil xaqi jaa isuhul masu jaa isuhul masu maha sadiqi bil ala taxqiqi Sëriñ Tuubaa ne dagan na nga kaf ak sab xarit wala kooku séqal waaye teg ko ci dëgg loolu li tax ma di ko indi mooy fonkeel gi ndax ku xool pénc mi xam ne mi ngi koy waajale noo xam ne sax bis bi taar la laaj dama jël la tey bernde yi nag yi moom ñi ngi waaj giléem yi ñi ngi waaj xar yi ñi ngi waaj bëy yi ñi ngi waaj mi ngi ko ci waajal ganaar yi mi ngi ko ciy waajal col gi sax mi ngi ko ciy waajal xanaa xamoon ne bis bi sax daal laaj sol lu set lu xay ba sëriñ Tuubaa xam ne yaa ngi koy sant la sa borom taalibe yi nga xamante ñoo ko war a ànd ak moom ñëpp yëg niñ roof nañ leen ñu yëg nit dañoo war a joxe si addiye ngir bis bi te joxe gi ñu koy joxe si ngir bis bi xam nañ ne bañ ko ko joxee dana àgg fa mu jëm barki démb daa am ku ñuy wax Moustapha Lo ku dëkk Angleterre da ko da koy faral yónnee ay bagages yu am solo ay parfum ak lu aju ci yooyu rek ay dàll ak lu ne kooku sëñ Mbàkke saa su ne kooku sëñ Mbàkke lay woo ci moom lay jaar sëñ Mbàkke ñi bu ma déggee dana xam li may wax wér na wala wérul kooka bi mu mujjee yónni àddiyaam da caa boole nii dafa am wëlis bu mu ko mësoon a yónnee nee na tëdd guddi sëñ Fallu ne ko wëlis bi nga yónnee woon sëñ Abdou Karim de sëñ Abdou Karim won na ma ko nga xam ne moom mi nga xam ne moo jëf jëfam te jëf nag nañ bàyyi xel ne ci poosam lay jóge mm-hmm. te da koy coobarew mu neex ko mu xam ne li muy def neex na ko mu di ko def moo ci yëgaat loola te moo ko nettali boppam kon wax ju gën a wóor jooju gën a dëgg loolu mu amul loolu li tax ma indi ko mooy day toog ci kanam mbooloo moom sëñ bi na lu ngeen ma jox sëñ Fallu dana ci jot loolu nag du ñeme engagement rek a tax mu wax ko de lu mu yëg la diggam ak sëñ Fallu moo tax mu wax ko te boobaak léegi mi ngi koy waajo noo xam ne doy na kiimaan base bi muy teg fii rek dana jege 8 millions waa mu ëpp ko te 8 millions xaalis la de ku fonk tëb bis doo jël base bu toll ni 8 millions di ko teg fii te taalibeem yi nekk université te njoogu jiite leen ñooy ànd fii ñëw def ko defin wu rafet te du leen yàqal seeni jëf ci màggal gi fu fu taalibe ne yaa ngi koy waaj fi ne nii ci kanam tuuti tey wala ginnaaw suba wala ginnaaw suba ngeen tàmbali koo gis muy wër ci kër gi dal yi sax ñim koy defarloo kenn ku ne xam na fooy teg dal ndax rijaal la koy jiite ak ñim ko àndal du tee moom moo ciy ànd ndax bëgg na gan gu ne boo ñëwee fi ngay dal ndax li ci misaal gan sax day ñëw mu ne ko sa dal bi noppi na fi ne xelam sax mi ngi nekk ci ñi war a ñëw nga xam ne xam na fi ñu war a dal ak fi leen di dal suñ kër mii dana ci ñëw wala dana ci dana ci ferasu diggante Baye Fall ci lay wax waaye li may wax moom da koy teewe na ci liggéey bi lay bokk taxawin wi ak teewlu gi nga xam ne fu góor war a dal fa lay dal fu jigéen war a dal fa lay dal fi na mbooloo mi li muy bari bari bari or may dëkk bi seen Karim da koy seggaale bàyyi waale ko xel te képp koo xam ne màggal si nga te ñëw ambaale woo war may dëkk bi daanaka da ngaa ñëw rek di wëreelu soo wëreeloo bu wëreelu gi jeex rek nga dellu si dellu sa kër waaye nit bi dem ci lu baax lu toll ni Serigne Touba nga xam ne lépp tiyaabu la te moom nee na am wal laa yor wal mi bu ci nit xuusee mën naa génne jamaa mën naa génne lu ne madda illa ya madada lii yaxludu fa taabati nafsu wa taabal xaladu ndax sama jëmm la àndal ak sama esprit Serigne Touba neen sama jëmm ak sama esprit ak sama léppay ànd fi ne ba faw wal mi nag saa su ne mi ngi fii di ànd ak man képp ku sàkku loo sàkku ci biir da ko am nee boo xuusee mën ngaa dal mën ngaa njëkk a daj eh, or defe ne or a fi nekk fekk jamaa ngi fi boo dajee jamaa defe ne jeexal nga fekk luñ xam ti kon mi ngi fi moo tax ni muy organiser kër gi dina ko organiser li mbooloo mi bari bari kenn ku na dana am fum la teg daayira itam kenn ku ne moo lay wax fi ngay baas ak sa mbooloo wax la na nga fa war a nekkee wan la na dëkk bi daa am lu mu laaj nañ ko fi nekkee ba jóge fi ndax dëkk bi ba léegi gars yi bàyyiwuñ xel ne sëriñ Touba moo fi tëdd wax naa ko keroog Lamp Fall TV dinaa ko waxaat fii tey dama wax ni gis naa nit ci 28 muy woote téléphone di wax waxin wu doy waar ak ki muy waxal téléphone ba mu noppee ma ne ko waaw sëñ bi jumaa ji kan moo fi ne mu a ma xanaa imaam yi ak ak ñi ñi fi siyaar ak yooyu ma ne kon jumaa ji xamoon na suñ fi ne mu ne maa ah, loolu sama xel génnoon na ci man xëy na sax fonk kuñ fonk suñ Tuubaa mën naa indi sa xel ni ne sax ci yi ma noonu naan fii mooy barabam yooyu waaye nañ xam ne fii mooy barabam ndax foofu lañ ko mujj gisee kat te Serigne tubaa ginnaaw fu mu jaar julli fa képp maanaam képp maa ngi jégalu képp sax wolof ne ko ngir réyal mbir julli fa jàll dañ koy daal di ñag tabax ko kon rawatina fi ñu ne fii la tëdd foofee ku fay jaar war ngaa xam ne fii ngay war a jaar war a bàyyi xel Serigne tubaa kuy ñëw dëkk bi da nga yoraale loolu dëkk boo xam ne ceddo mosu koo yor ceddo musta moom dëkk bi te cedd ba ceddooy xew ceddu nag bi sëñ tubaa ñëwee la xew yi waaye ba muy xew dëkk bi daa daa ñoŋoon li sëñ tubaa naan ñoŋolal ma si dëkk bi fi ne dañoo dañoo jàpp ni bi ko sëñ bi ñaanee la ko yàlla def yàlla defaloon nag ko bu yàgg yow daa ñëw ñaan ko ngir ay teggin ndax tuubaa xarasaxal laahu la wax xarasaxa fii lu maadin la fii lu maadin mooy mooy lu passé yàlla aaral na ma ko loolu nag kon waajtaay woowu sëñ Abdou Karim da ci dajale ay xelam waa këram yi ne ci biir kër gi te soxna maam ami ne fi ak soxna Fat buntu buntu buy ak soxna lii ka moom Amérique la ne waaye defe naa ne dana fekk si màggalu ren gi ñoom ñëpp la ni ñuy waajalee gan yi sax day toog ak ñoom di ko di ko waxtaan ñoom nga xam ne bagage si ndékki yi sax sëñ Abdou Karim ci kanamam lañ koy teg mu di ko tiriyeel boppam kaas bu ne mu xam ñaata kaas moo jëm fii xam ñaata kaas moo jëm fii xam nangam moo jëm fii loolu bokk na ci ni ñi ni ñuy yore mbir rawatina nag nga yore ko ci biir kër te war koo yoral ko toll ni Serigne Touba màggalu Kazu Rajab noonu lay def màggalu Serigne Touba gi daw rawati kon daal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.